ñun bëre wuñu wóor bëre waatuñu ak Reug Reug eh bango ah, ah. bëre ak moom daan daan la fii gis nga fi ñu daan nit ba tàyyi ñëw def recours jox keneen ka victoire dëgg la ndam noo ko amee jar na ko dëgg la nañu yëkkati sa loxo rek décision arbitre moo gën a ñaaw buuse buuse maa bañ taxawal rek décision arbitre non ma non non maa bañ non non da ngay déglu non ma ñëw ma ñëw décision arbitre non non non eh, da ngay déglu non non da ngay non du ay non non non déedéet wa ma ngi yàlla Fadam Salam waaw Salam ma bousee décision arbitre waxaa mox la moo gën a ñaaw kat apite décision arbitre nit da ciy ndamu ba at non déet non waxuñu loolu non Sadio daan la kenn wax waxuñu loolu mais dañu la loolu kenn loolu gars yi dañu la dul baax la la moytuma xaalis est-ce que xaay du bari. bëriwuma deux cent milliards bëriwuma ak ah, léegi rek ah. keneen laay jël <laughs> waaw day toppaat day toppaat suñu ginnaaw dañ-dañi day daj li xale yi di daj ñun boo ñu fayoon dix milliards lii ngay wax nii man may wax ak yow télé barki sëñ Bamba Mbàkke kañ laa ñëw fii lëndi waaw ah? balaa may ñëw dañoo toog kër Balla Gaye nit woote kilifa gu mag a mag yor xaalis bu bari bëgg ko ñu ne ko eh bu ñu ko waxati promoteur ñeme wu ñoo woo du ñu ko wax. lu tax ñuy bëriwaat ak léegi ñu daan ko digg Sénégal jaay yëpp àdduna yëpp teg seen bët. nga bëgg ñu bëriwaat ak moom bëri ak moom. te fii ñu fiy jël bës a ngi nii décision arbitre Tapha nan la daanee Boy Niang Tapha nan la daanee ba nan la daanee Bombardier te fi mu nekk nii mi ngi teg ci bopp mi ngi teg VIP lu tax kooku neewoo leen ko mu bëriwaat ak Boy Niang wala mu bëriwaat ak Bombardier ngeen bëgg ñoo bëriwaat ak Sa Thiès yéen la ah <laughs> ñoo ko daan dañ koo daan dañ koo daan jël bu leer dañoo daan lu ne dégg ne coow li bari ku ne di wax ñu ñëw daan ko avec manière quatre appuis ko quatre appuis bu leer léegi dañuy dem jëli suñuy mag Sa Thiès daa bëgg ñam roi des arènes du taxaw oh! benn place kese lay lay la Sa Thiès Tapha Tine pare naa pour Tapha Tine pare naa pour Gris Bordeaux ku ci ñëw mu bëre jëm ah dégg ba baax ba baaxul Bombardier non Bombardier baaxul baaxul ah, Bombardier siru bi siru bi moo nekk te wër moom dafa kalandewe comme maanaam Bombardier daa bo daa kii daal daal kenn xamul lan la daal Bombardier du mënul mënul du duñu oh. yóbbu fenn daal wóorul wóorul wóorul wax jàngoo wóorul Bousse wax naa la kii euh, euh, Fara wax naa la nee naa la Bombardier Sa Thiès ay ñii nii si combat yooyu parce que Bombardier ñi koy bëre mooy ñi négocier teg ay calcul di mais Bombardier ay Sa Thiès attaquant yi mun da leen sonal bëriwuñu non non non non Bombardier moom moom dafa ne waaw Bombardier Sa Thiès kan mooy seetaan si mais Boucher Bombardier la moo ci ne non non ah! Bombardier Sa Thiès kan mooy ñëw ah man de xamatuma dara léegi kuy ñëw waaye baamu waay alaaji bës maa ngi lay nuyu xam naa da ngaa nekk ci yoon. bës dégguñu la. bës dégguñu la la buuse Fadam neex muy neex muy naan si ndox mi ndax ma am ten ten bu baax Fadam ñu la trop buuse. buuse. Fadam mais mais dëggu yàlla bi ma ni xamul tax ma bëgg dëggu yàlla bi xam tax ma bëgg la. waaw nees da ngaa suñu réew moomu. kan la. yaw da ngaa valoriser Amérique. ah da nga ba ma ba ma juddoo sama ndeysaan baay ba léegi man nii mel mos naa ko mel ma mel nekk ci yoon. mais mais mais mais mais lan moo tax nga ne Sa Thiès du jël Bombardier bu wutee la moo tax ci Bombardier ba Sa Thiès mënta jël Bombardier. non mais eh mais Boucher la wax tamit ah, da nangu leen tamit ñoom tamit am na kilifa gu mag ñu war ba ñoom bëriwuñu ak moom de su ma la waxoon ci kilifa bi teg xaalis bi ñëw ak ay millions yoo xam ne Sa Thiès mosu koo gis ci àddunaam yaa am na droit te dootu ko ko dolli di ko ko wax dootu ko ko waxati yaa am na droit dañuy bëri mu ñoo ko raw nii ñoo ko daan raw ko léegi Tapha Tine moo daan Boy ñaan nan la ko daanee par décision arbitre nu mu daanee te moo leen raw nii ñu bëgg ma dellu mais yéen. Alaaji Fadam. waaw yaa ngi may dégg ah. Alaaji ma ne fan yaa ngi mos dara yow bës fan yaa ngi mos dara ne yaa ngi génn. non non boucher moo may mosoon rek desitu boucher yi laay gérer. <laughs> yow barke sëñ moom mais mais ba booy gars booy ñoom buuti nii ah, ñu ngi koy yàq lamb. ah, ah comme ah bu ñu ñëwee ñoo ko waxal seen bopp rek yaakaar naa kàddu gaa naa ko fi keroog mais maa ngi nuyu bu baax Nes ak ak ak Boucher bu baax a baax di nuyu Lamine Samba mi fi génn. mais mais mais il faut ñoom ñu mm-hmm. digérer tuuti seen victoire la ñu bëgg a digérer xam nga jotuñu jubilé. Mm-hmm. il faut ñu bàyyi ñu jubilé tuuti mais bu ñu jubilé wee ba seen xel dellusiwaat.

ñoom lu ñuy bañ dinañ ci jël benn par force. muy bombardier wala ki nga xamante ne moom mooy rëg-rëg. faaw ñu mais yow Beuz. waaw Beuz yow lu tax nga ah! yow yow Beuz. waaw. yow yaa ngi xalaat yow Beuz yow ban kat kat Sa bu bu fi rëg-rëg rek desoon nii nii nii mu bàyyi bëri. waaw léegi dama la bëgg a laaj benn affaire Boucher. waaw ma lay question rek Sa Thiès fu mu kan lay bëreel. Tapha Tine fi. waaw non xam nga Boucher. tafaatin daf leen di nax tafaatin daf leen ne pare na leen pour may len chance tafaatin wajul sax pour bëri yéen. wa léegi tafaatin waa léegi tafaatin eh, ban ban raison la am bo xamni du bëri rek. Sa Thiès non non xam nga tay tafaatin lu Sa ties beug mom la tafaatin beug xam nga Franc ak Forza ku ci daan day confirmer ku ci daan diggante ak Forza ku ci daan rek rek lay beurel wa ma ngi ñëw Franc ak Forza ku ci daan ci lamb da nga confirmer parce que ah. da nga daan ay champion. Ah. ku ci tàllal loxo Sa Thiès Sa Thiès da ngay naan man ci kaw laa bëgg jëm. taluma combat choc taluma combat derby. lolo dal tafatin Tine. Tapha Tine ci génération moom moo ci nekkagul roi des arènes. Eumeu Sène nekk na roi des arènes. Balla Gaye 2 na roi des arènes. Bouze baal ma Bouze foofu bañ naa Reug du wàccaat bëre xale yooyu mukk caat. ah. barki Serigne Babacar Sy. Forza ak kii Forza ak. barki Serigne Babacar Sy du du bëre ak kon bëre. extension. mais non dañ koo daan. non mais mais mi ngi ci loobi fii ñëpp ah, ah, ñu ngi daan bay rek ñu ngi ci loobi. lamb ji tas ko def ko daayira waaye bu fekkee. ban daayira ay Forza Forza Fra non rek du bëri ñu. doo leen wax dëgg ji mu leer. fi waxee dañoo mës a bëri cinq millions. Fra ak Forza laa la wax ku ci daan egg na. ku ci daan mënoo bëri rëg rëg rëg. <laughs> waa lamb ji nag kon baleen lamb mais yow ki léegi léegi xam nga fu mu toll nii rek rek dafa nekk ci guddi gu bës sutugul rëg-rëg dafa nekk ci guddi gu bës sutugul te fu mu toll nii am na promoteur bu mag boo xamante ne mu ngi xalaatu dox ko combat rëg-rëg ak ku daan ci franc diggante franc Forza te loolu boo gisee mu am tey rëg-rëg lenn rek la mun a am chance mooy am promoteur boppam am promoteur bu ko ngemb bu dox digganteem ak bombardier bombardier may ko chance loolu rek moo mun a may chance rëg-rëg fu mu toll nii rëg-rëg ci franc forza lay jëm parce que amna promoteur yi ci commencé nek man lolu amna ci luma leer waxtan na ci ay promoteur seen xel mu ngi ci rëg-rëg ak le vainqueur de franc forza léegi léegi man mi nga xamante ne man mi nga xamante man sama ñom ñëpp sama jabor lañu waaw ma ma lay wax ne lolu du mës am ci adina mais mais deug le ness deug na fi ngay waxe parce que tamit tey mbër am na niveau boo xam ne da nga fa toll rek lu fu mu àgg. négocier wu ko. fu mu àgg négocier wu ko dafa reyal benn benn defet la am benn da ngaa xew nga xewee laa bëgg xewee ah. mais itam newuñu newuñu rek rek ak n'importe qui rek ak franc rek rek ak franc forza combat yi nii la. léegi nag ak Franc de Franc tamit Franc amul defar ci lamb de Franc daan na ku nekk ci lamb de. non non non bokkuñu eh. ci lamb de. bës xam nga làmb ji rek ñaar avant mi bëre ak eh, ñaari combat yi ñaari combat yi mu dugg ci eh, eh, xam ngeen ne Elton ak comprendre naa leen wuy ma comprendre na leen parce que léegi làmb dafa métti chroniqueurs yi sax ñoo gën a sonn ci làmb sa genre yeeg genre bës yi bu ñu waxee dëgg ñëpp dal leen ak def ay affaire eh waa dag may déglu wax ji wax ji lenn la non non Sa Thiès Tapha Tine mënatu koo bañ ci àddunaam force dañuy bëre. eh waay rëg eh, eh. day xaar Franc ak Forza loolu mooy dëgg gi. barki alxur wuy ma ak fi làmb toll ni alir bii nii làmb toll nga tey ñu ñu waxante dëgg Reug Reug bu daanoon Sa suba bu ko daanoon dimanche lundi moog la dëggeer taxaw lundi mais mais lan motax lan motax lolou nga wax amna soale beuri wa digam ba ci parce que djublu wuñu djublu wuñu beuri wuñu mom bañu mako de bañu mako duñu djublu wul sirru sirru bombardier ci bopam mo nek sirru bo xamni mais faram mais faram bay jambot mi wax na beuri wuñu ke eh, eh eh eh, eh bañu ma bombardier de bañu mako raw mako de sirroom sirru mi moo neexut sirru bi moo moo moo moo moo baaxul. bu si est-ce xam nga ni bu si est xam nga ni sa combat Reug Reug mun na taxawaat suba pour fin saison. ah. bës loolu bu taxawee ma génn géejawaay. ah ah, ah. ah, ah. ma eh bëre wuñu. ah ah. benn affaire Boucher dama lay expliquer benn affaire xam nga yow. loo dugg mën nga cee génn ndax da am ay kilifa man lu ma dugg mën naa cee génn ndax am ay kilifa ñun ñëpp dañu am ay kilifa Boucher ak loo jël jël ay engagement bu la kilifa yi woowee ne la lii moo fi sës nga nangu kon bul ci wax lu ëpp mais bës dama am ay kilifa waa léegi non dama ne su ma yoroon wuyu ma su ma yoroon beneen téléphone dafa mel ni bës xanaa non fu ma koy fu ma waxee mooy Boucher ñu proposé liñ ah? ko Gris Bordeaux fay ñu ko euh, gëw ma ni sax fay nañ ko buñ ko fayee ba Modou Boy Niang ci lay am lu garaaw laa lay wax. léegi léegi léegi léegi bës ma dama tiit. Hmm? mais bëriwuñu bës. waaw. déglu ma buuse ma dama tiit dama jaaxle. non dama ñëw buuse. pour ah yéen nag yéen a yàq lamb. buuse lamb buuse njëkk noonu woon ur xaalis. Ah, ma ñëw ah, ma ñëw yéen a tax kenn mobilisé tul yéen a benn mbër mobilisé tul. benn mbër soxlatul ci entraînement. taxawal rek taxawal. may ma tuuti may ma tuuti may ma tuuti. yéen a tax. boo nee làmb wut xaalis la. yéen a tax mbër yi entraîné tuñ bu ñëwee du ñu indi doole dañuy dem Amérique caaxaan ñëw yi indi mbëfër ji yéen a tax mbër yi mobilisé tuñu sonnatuñ ci seen i làmb parce que wutukaayu xaalis lañ ko def te làmb bu njëkk da ngay wut ar roi des arènes moo doon jaral nit ñi da jël ay milliards moo tax man naw Ama Balde Ama waaw ah, mais xam nga man xam nga li ma bëgg man xam nga li ma namb man man xam nga li ma namb man Boucher bu nekkee Sénégal daf ñuy déglu duñu bàyyi xel ñun bu ñuy waxtaan nañu fexe ñu ñuy déglu jëlee ci njëriñ mm-hmm. Boucher mii bul wax sa bëgg-bëgg ñu wax ci cadre làmb nees bul wax sa bëgg-bëgg nañu wax ci cadre làmb mm-hmm. mm-hmm. Fadam ak Beuz ñu bañ wax suñu bëgg-bëgg mooy tey ñun yal day dogal ñu am information yoo xam ñu ñuy seetaan quatre-vingt-dix-neuf pour cent duñ ko am tay avenir Sa da fay dépendre ci Gris Bordeaux Ama Baldé mhm. parce que quoi qu'on puisse dire Boucher yow gëna xamni tafatine a xam dafa codé langage bi. buñu ñu waxu ay na jël ak yoy tafatine Tine dafa codé langage bi. Mhm. tafatine mhm. Tine dafa ñëw ñu ne ko Sa Thiès mu né pare naa pour may ko chance samay mag dañ ma mayoon chance kon dama koy may chance. mais li ko wax may ko sax daa egg daa egg man sama bop man ma né Sa Thiès ak Balla wa man sama bop man sama bob man mané ne. waaw pousse man maa gën après nga kon kenn mayu Sa Thiès rëg-rëg àgg Sa Thiès àgg mais dama lay xamal benn mbir Tapha dafa codé langage man Tapha comprendre na comment il réfléchit toog naa ak moom waxtaan naa ak moom à plusieurs reprises mom ak staffam xamna bu baax staffam comment il réfléchissent xamna bu baax staffam comment il fonctionne donc dañu pëtëxal Sa Thiès fu ko pëtëxal moy dañ ko né pare nañ pour may la chance mais promoteur du lañ wo diko dox ku ko wo dox la ñu laaj ne deux millions ma 150 millions nga genn ci Tapha Tine dafa am objectif am fu mu tek beutum fu mu tek beutum génnul ci digënté Eumeu sen Balla gay de modulo fofu foofu la Tapha Tine ba tek beusam donc da leen pëtëxal légui nak yeen yeen man dégg na leen mhm. wax na ko kérok té te confirmé ko ko yéen bëggoo leen bombardé nak da ngeen ko ragal ci yenn fan yi bëggoo leen ko jël kon légui lan mo leen déssé li leen déssé mhm. fu mu tolli moy gribodo mhm. tay nak da ngeen di xaar gribodo bari bëri Ama Baldé ba paré ngeen jël ko

cachet bi dina yokk gàtt gàtt trente ba jëm quarante millions donc man waxuma waxu faral waxuma waxu Sa Thiès àgg na àggul man fi ma li ma lay wax nii mooy waxu yow luy waxtaanu làmb li ci suuf loo xamante ni amateur yëguñu ko te ñu war ko waxtaanee ci kaw. waa léegi nag kaay ma wax la benn affaire. waaw waaw. ma wax la benn affaire. boo paree na nga may nes mu ñëw. Sa mhm. benn promoteur woowu gu ko ci àdduna ne ko yàgg Bombardier mais Bombardier ñëw na ci live Lamine Seck taxaw ne. waaw mais moom Sa Thiès mu ngi ñëw ñaari promoteur ñu wax ak man sama diggante ak Sa Thiès. Beuz. Mm-hmm. Beuz damaa tiit xam ma tiit Beuz. waaw loolu bu la neexee nangul lañ ah, am na ma tiit Beuz. waaw. nees meeku mu ñëw rek nga ñëw. yow Beuz. yow Beuz yow Beuz. lam seen gaal gi dee Beuz. même yow taxawal rek taxawal rek taxawal rek taxawal rek taxawal rek. yow Beuz yow Beuz làmb Bombardier Sa yow ah. mii yow mii buzz xam nga li ci la xam. xam buzz, ko bu baax. waa jaru ko bës xam naa. ma buzz bës. ma ma ma ma ñëw affaire buzz ngay gis mu taxaw ci live bi man maa leen ko seedeel tey li ci li ci biir këru mbëri sax xam na parce que nit ko bëgg jox ko confiance. Mm-hmm. loolu mom, dama la koy sédel tay ni ku baax la li ci mm-hmm. biir keur mbeuri la la wax. moom xam na ko ndax respecté ak ay valeur am ak xam doomu aadama ak gëm boppam ak yar moom mi xam na lan moo laxas non man damay génn buus non man damay dem même tuuti xam na lan moo laxas damay dem damay dem damay dem nii ma dama lay waaye taxawal rek damay dem damay dem damay dem non man damay génn buus Fadam gis ma nii de gis ma nii ni nii nii man ma toog waaw Balla Gaye 2. tey nii nii ma toogee nii yor sama téléphone nii. bu ko nit ne woon kar nii léegi léegi. ne ko bala nangam. balaa cinq secondes sama téléphone sonné. kon ci côté yëpp nag ci côté yëpp ndax dafa am fu ma teg. waa waa mais dama lay wax benn affaire. Mhm. rek rek bëriwuñoo ak moom te Bombardier. waaw jubluwuñu dañuy xaar. loolu leer na léegi léegi bës. waaw. bës dama tiit dama tiit dama jaaxle. dégg naa la. lamb waaw. Sénégal yi dee te gars yi bàyyiwuñ ci xel. bu Serigne lamb Sénégal bu ñu demee ba toll fi mënoo wane fukki mbër. dégguñ la de. lamb Sénégal la ñu dee. liñ fi lim lépp boo leen calculé mënatuñu dix mbër. bàyyi leen ci xel. dem ba dem ba mbër. di am problème adversaire bu mu bëreel di xaar ak di teg dam yi di xaar pour amoo koo bëreel aar lamb Sénégal la parce que mbër yee teel doyal mbër yee teel doyal tey mbër yu bari ñu ngi leen génnee ci course bi du yoon guy gi dafa waroon bokk ba tey mu waxante dëgg non lamb Sénégal la ah Gris 2 Gris 2 daa waroon sërëx par force ana Gris écarté yi ñuy écarté mbër yi moo dul yoon ay jën kayre jën kayre waroon na bëri bu yàgg ba ñëw bokk ci course bi. est-ce que fada ma xamal la benn mbir. waa kër Sa Thiès ñoo ragaloon dëgg rek mais Sa Thiès faalewul woon. ñëwal Alaaji Bës. waa ñoom bu see këccoo mii. parce que yenn saa nga jóge ci ay jafe-jafe ci sa àdduna. jafe-jafe yooyu noonu nag da lay jàpp. bu la jafe-jafe yooyu jàppee da ngay dem ba da ragal parce que Boucher dafa am engagement bu mu amoon ci combat Balla Gaye Boy bu combat bee boobu jàllee mu xaw a am nu mu ragal tuuti am li denc ci moom mais tey waa Kër Sa Thiès bu fekkoon ragaloon nañu un pour cent Reug Reug fu mu toll nii lijjanteetuñu Reug Reug moo tax ma gëm ni combat bi mën na taxawaat xam nga lu tax xam nga tax may la Sa Thiès faalewul Reug Reug Sa dafa bëri Reug Reug ak blessure bu méttee méttee métti mhm. loolu man maa ko fekkee man te ngaangu ma ko fenn mhm. dama am benn nit koo xamante ne sama xarit la fajkat la fajkatu tubaab la nekk fii cité kër góor gi di faj wàllum yàq ay articulation yooyu ma ma dem fa toog di waxtaan ak moom mus naa fa yóbbu ay mbër mhm. yàgg naa fa yóbbu ay mbër ndax tey bépp mbër bu am jafe-jafe man dama gëm di da nga war a mun a faju ak ay professionnel kon kooku dama ko doon defal publicité ba ne bépp mbër bu bëgg na ma woo ma yóbbu la fa ñu faj la gratuitement kooku bu ma ñëwee mu ne ma ndax yaa ma yebal Sa ma ne ko non Sa Thiès yebalu ma la ko de mu ne ma ah ok Sa Thiès ñëw na fi ma ne ko ah am na lu ma doon am na lu ma doon ñort ci Sa Thiès bi moo ko gisee muy entraîné am na li ma gisoon ci épaule bi da koy Sa Thiès foofu la fajoo ci épaule bi mais image de Sa Thiès am épaule bu méttee métti après laa gis vidéo yi ba pare bëri koog rëg-rëg nga xam ni Sa Thiès gëmoon nañu ko day daan rëg-rëg léegi bës taxawal te tey ma ñëw tey ma ñëw ñoom bu se nii nii nii xar xar ak waa kër Sa lenn lañ leen tere woon ci combat keroog muy coow. muy lan ah. moo tax bu coow ba amee man damaa juum sax foog ni coow li dafa am waa kër euh, kër ga kontaan mais bu ma xoolaatee image yi laa gis ni bu coow bi amee dañu découragé parce que dañ leen ne woon làmb ji yéen a ko nam li leer na nañ coow rek la leen di ci tere. ñoom seen diggante Reug Reug dañ ci am lu ci wóor wóor wóor wóor wóor wóor mm. bu ñu ragaloon Reug Reug léegi ñeme nañ ko moo tax may la combat bi mun na taxawaat. waa léegi nag kaam wax la. te xaalis bu bari loxo boobu nag xaalis bu bari loxo boobu loxo boobu ci digg arène nationale. Fadam bi bi combat bi desee une semaine. kilifa yi dañoo ñëw toog ñu waxtaan pour aj làmb ji pour saa ci ba dem yaa may dégg dafa bëri mbir wi waaw. yéen yéen a ngi fi ne maa ngi ziare maa ngi ziare bës. waaw. micro bi bi comment dama koy dagg eh bës une semaine. bàyyi ko mu jeexal bàyyi ko mu jeexal bàyyi ko mu jeexal. yaa may dégg. daal meeku mu jaar daal meeku mu àggali après nga dañoo toog waxtaan pour Sa Thiès aj ji parce que bëgg tuñoo suñuy combat mm-hmm. toog mm-hmm. am ku wax ki wax keneen ki wax ba mag ji wax mm-hmm. ñu mais bi ñu paree dernière décision moo ko jël ne day bëri biñ toogee ne dañuy aj làmb ji Sa Thiès dafa dégguma li nga wax nga ne daa am ku wax kilifa bu mag bu ñu jege keneen wax ku ci topp keneen wax ba mag ji wax moom mi jël dernière décision ñu ne ko loo ci xalaat mu ne man damay bëre waaw te ñu ngi téye rajo bi ñu ngi te këyit yëpp kayitu docteur bi yëpp docteur bi ne ko bul bëre li boo ci laawee mu dal ci bopp bi sa loxo bi dina am problème boo ci dóoree sa bi dina aw loo ci def sa loxo bi dina dee mu ne moom day bëre Sa Thiès contact na ak fils de Balla gaañuwaat nëbb ko ndax boobu joxe na kàddoom ba pare man wéet naa ak moom ne ma gaynde da ngaa bëgg a bëri ma barke Serigne Bamba dama koy daal mo mais hmm? dallu xaaral ñu dugal dallu tuuti ndax dafa nekk fi muy liggéey waaye maa ngi ziar maa ah, dallu bu ziar ñu ngi lay nuyu ay information maa ngi ziar ñëpp quoi bës maa lay ziar euh, di di di la ziar yow Fadam mais Bousse. waaw. yéen ñaa ci dërëjëy Seydina Mohamed. bu leen doon fayoon quatre cent millions combat bi da koy galaat loolu loolu daa leer Sénégalais yëpp. non non non non loolu ay wa loolu bës day. liggéey ah. rek mais ñii bu leen ñii bu leen fayoon un milliard bu ñu karim oho mais loolu dañu dañoo président pour mu pour mu taaj leen wax ak ñoom ñii di na ci combat bi xam nañ ko de. duñ ko jël te te xoolal sa rëdd wala leer parce que ay bombardier yi. ay lii ba ma sama garant la gis nga bëgg dem bi ñu duggee fi ñu waxtaan maa moom mu fàttali ma lu bari. ñooñu ay garant la loolu day rey làmba ji quoi li nga Sadio rëdd daa wala leeraat nañ si bopp Sénégal yi. non non ñooñu ñoom ñaar rek ñoo fi ay ay adversaire parce que daa wala leer kenn. xaama añ damay añ. Eh, non mais bouse bouse. am bouse non bu dee si botte rëdd sax day daw. commentaire yi ñoo ko suxlu commentaire yi ñoo ko ne bul. non non non non non bës bës bës bës li ma lay wax nii a dara nii mais xoolal xam nga lan la xaw ma nu koy waxee ci français de dégguma français de. Mm-hmm. mais dama ne dama ne la ñii boo leen fayee li ñu daj ci combat bi ak combat bi ni muy demee nii loolu moo leen tiital mais en fait bi gàllaaj quoi nan ñëw ñu ñu bëriwaat après ñaari mbëri ku ne am ci xaalis quoi. boo am ci xaalis je ne pense pas que na ci lu metti ci komba bi lu exceptionnel lu tax mu war a mën a ragalaat Reug Reug. man li ma gëm ma gëm bës. waaw damay ñëw rek damay ñëw rek dama lay wax làmb laa lay wax. waaw mais avant combat ëpp pression ci làmb ji gars yi dégguñu fu may waxee ñu bëri weddi ma. ñu ne ma Sa Thiès ëpp pression ndax ci li mu jógee ma ne leen Sa Thiès sa mm-hmm. waroon ëpp pression mais dëgg dëgg ëpp pression ci làmb ji. te yaakaar naa ci ni ñu bëree wanee na ko. dañu gis mm-hmm. Sa Thiès bu bëri décontracté Reug Reug bu bëri ak pression Reug Reug keroog il avait trop de pression ci combat am bii nii. donc tey. dëgg la mii ma gis bu fekkee Reug Reug moo fi sës bu ñu yégalee xaalis bi da koy jëlaat. ku nekk nag ñaan nga yàlla avancé ci sa carrière avancé ci sa carrière mooy saa yoo daanee nit hmm? ñaan nga yàlla yéeg dem ca kaw bëri ji roi des arènes Sa Thiès yooyu la ne mais bu fekkee tey Gris Bordeaux disponible buñ ko fayee xaalis bu day jëlaat dëgg mais xaalis bu weex tàll lay doon waaw mais bës mais bës bës mais mais doogu ma la bës mais mais mais daal mais bu fekkee ne. Uh-huh. Reug Reug comme li Beuz wax daa ñëw. jëlaat combat bi non jàmm ak salaam rek. lan lañ mën a xaar ci wàccaaru géej. jàmm ak salaam duggal suñuy mbokk defaruwaat xam nga ñëw taxawaat quoi dama lay dama lay benn affaire ne la Beuz li mu Beuz li mu wax nii ah. xam nga sport moom mook coow ñoo ànd quoi ku ne xam na ko ñun caare géej ñëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi jégalu li fi amoon xam nga. ñaanoon yàlla sax mu jaaraat fi quoi parce que ay adversaire man waxuma dara bu dul dara Sa Thiès daa war a am xaalis si lamb ji quoi. yaa may dégg at wala man manul manul Mm-hmm. mais teel téléphone benn yoon bu jëlee bu jëlee combat bi nii lim ci lim ciy fayeeku du ko mas a fayeekuwaat mais xam nga avance bu njëkk ba da doon seen kër di wër di wër di wër ñëpp wax senegal gépp mu koy dóor a jël mais dama lay benn affaire ne la ñii ay mag la ñii génn na lamba ji xool Kamba Sa Thiès ak Reug xam na defaat na ci lamba lu ne yaa ngi dégg ba laaj jaay du ko wax mm-hmm. não lol ba loolu jaay ma leen lu exceptionnel. gis nga oto bu bees bi mu yor nii. oto de moom laa yor depuis não ans xaw ma deux ans. ah oto bii non non eh eh eh ba sama gaañ la ba dama lay benn affaire ne la bi nii nii nii lekk na ci lu bari. non non. lekkuma ci lekk na ci million. lekkuma ci dara. saa mu ñëwee si. non non Ibrahima ma xar kon kooku mi ngi mi ngi mi ngi laal. combat bi barki démb yow combat bi mu jeexee ba léegi gisante wuñu mais loo ci mënut a dégg Fadam. ko euh, làmb ji daal fu euh, ils ont le choix. parce que itam quoi qu'on puisse dire ñom ñu am ndam. choix bu ñu am nak moy mun nañu jël disque <laughs> dem bëri bombardier parce que jël disque bi moy euh bu ñu jëlee avance bombardier moy ci biir kër gi. ay werante dina ci am dégg nga légui waxon naa ko ci live bi kéro bu ci na nako tay mun nañ jël disque dem bëri bombardier ça c'est une c'est une première chose. Mhm. deuxième chose.

bu daanoo ci amaa Baldé Sa lay bëreel mais bu daanee Ama Baldé Modou Lo Boy Niang lay xooli kat moo daan pour mu jël ko. asalaamualeykum wa rahmatulah Fadam. maa ngi mhm. kër. mais mais me mais mais mais Fadam am nga Fadam am nga la mooy problème bi mooy Sa Thiès. lamb Sa daf cee daf cee daf daf daf ciy def daf ciy def effet chaque jour. non c'est le contraire amala mooy amala mooy problème bi tey jii mooy déglu ma kay la Sa Thiès def effet Sa Thiès bu muy dama ne non dama ko ci non non ak Sa Thiès moom boo bëggee dégg dëgg ñoom ñaar ñëpp nekk day am loo xamante ne cool yi moom du ma ma sa leer xam nga li ma amul ay affaire daan naag daanu yooyu dootuma ci wax quoi est-ce que yaa ngi dégg. Ah, combat bi combat bi bu fekkee ne taxaw na. waaw maa ngi lay dégg nga ne combat bi lan taxawee. non non non bu tax taxaw non fa woon na woon fa woon rek. ba fay leen naa maa ngi yàq sa yoon yow man dama ngi lay jàpp bu la la may gisee di daaw nii lan la. non Boucher amateur

mais mais mais mais mais Dallou dara ngeen moo bi ma laaj bu fekkee ne. non non non rë rë rë Sadio boobu Sadio bu jëlaatee rë rë bii ba caare lay jaay caare ñëpp ay gën a jaay caare. pour lan. lan kay jaay def ko ci combat bi. te loolu taxul taxul ngeen am ndam lool taxul ngeen ñàkk ndam. waaw booy booy xam nga yow yow booy bi am na mooy problème li ka booy bi topp naa kan takkal jabar takkal jabar takkal jabar moo tax fi mu toll nii xoola lu ma wax mu xëpp ci suuf quoi ah. non non xam nga. léegi dama koy mu ngi sax di ay xeer quoi affaire yooyu yooyu bës dara amul problème man sama analyse personnelle laay def man moom ay tooñ yooyu noonu taxul ma. mais sama analyse. non non non non non non xam nga ñun xam nga ñun bës dañu kaa jàppoon si yàlla ay trois mois si ay quatre ans si ginnaaw nii. ay un non ay un an kaa jàppoon si gàllaaj mais fi mu toll daa mel ni daa eh, eh, mel ni waa kër waa kër Balla Gaye dañu kaa jàpp si gàllaaj fan yii jaajëf mais mais lan moo tax daal lu saa wala saa bu jëlaat saa bu jëlaatee rek rek jaaree yëpp la ñuy génne kër jaay ñee jaay kër yëpp ñu yóbbu jam ñaajo wala si ginnaaw jam ñaajo quoi. loolu loolu loolu loolu bu ngeen jaayee Ndakaaru sax loolu daanul Sa Thiès. waaw wa non ma wale c'est que c'est que xam nga la way daanu Sathies Sathies lu koy daan leneen la loolu il faut il faut <laughs> maanaam li ma waxoon mooy li ma waxoon gis nga gis nga dàll mooy li ma waxoon eh, Ada Fass mu ko déggee mu naan nekk na ci géew bi xaw ma lan na hmm. xaw ma lan na moo tax mu ñàkk combat bi ma nekkoon il n'a rien compris c'est que dafa am làmb yoo xamante ne doo ko perte ca bés ba am na làmb yoo xamante ne da nga koy perte deux mois avant combat bi am lamb yoo xam ne xam nga mhm. Modou Lo kenn la perte combat ak Balla Gaye dégg sax ko perte dernier combat mhm. ak su bet si ba donc Ousmane mhm. bu ñu face à ba Balla Gaye de def deux mois INSEP ñu tase Paris ñoom ñaar Modou Lo ah. ñëw jóge war dem Espagne suma juumul ak ay gaayam Balla Gaye de ñëw bàkku yëngal ci podium bi jël tànk bi fëgg ko <laughs> jël tank bi feug ko ci plateau bi bu mu fëggee tànk bi ci podium bi nga gis Balla Gaye di xeeñ doolé modlo xol ko nga xam ni Balla Gaye na Modou ci préparation bi au moins au moins 1 mois 2 mois de préparation té modlo dafa dëkk ci di entraîner mais entraînement bi waron ci combat bi Balla Gaye 2 ak doolé naturel bu mu am jiitu woon na Modou Lo Reug itam même chose Reug Reug il a perdu le combat 2 mois avant le combat à cause du poids bu mu jël donc il bu a da ngeen foog ne affaire ay investissement la ay ay tek, ay moyens pour pour mystiquement être prêt yooyu yéen a ngi nax seen bopp <laughs> yéen a ngi nax seen bopp dama ne la làmb làmb ci ay moment la Yo, quand tu perds dama quand tu perds un combat quand tu perds un combat ou quand tu gagnes un combat nga il faut t'approcher des intellectuels ay intellectuels de haut niveau sur le sport yoo mm-hmm. xamante ne ñoo lay conseil pour détecter pourquoi tu as perdu ce combat là mais affaire bi di nga dégg ñu naan dañ laa war ay dañ laa suxlu moo tax ma ne vous n'avez rien compris bu ngeen jàppee ne leen war wala dañ leen suxlu gis nga y a des gis nga Yékini lu tax mu garaawoon Yékini a été très tôt entouré très tôt encadré par des intellectuels de haut niveau ay ñoom Mansour Kama ay ñoom Mbaye Diagne ñi ngay gis manager ay ils sont intelligents ay Kati mm-hmm. Diop ay de mm-hmm. Diène et cetera Mbaye Cissé ils sont intelligents Yékini avait un staff c'était le staff des mhm. Libou, mhm. de Ndakaro, des personnes très intelligentes mais aussi un staff des mhm. des intellectuels sérieux qui ont encadré Yikini. Moi, yikini était dangereux Moi, yikini savait gérer beaucoup de choses psychologiquement